borom tubaa kon mbokk yi amaat nañu mbégte bu baax a baax di leen nuyuwaat di leen ziyaaraat fii ci dëkk bu tedd bi di tubaa rawatina ci jumaa ji di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér ci ndigal li nga xam ne joxe waat na ko muy bisub alxuraan bisub xasaayit bisub zikru la ñu koy amal ci mboolem euh, réew mi rawatina fii ci tubaa gis ngeen mbooleem kër yi njabootuk Serigne Touba gi wër jumaa ji noonu lañ koy dundale ñoo ngi fi ci kër Serigne Abdoulahi borom dër bi fekk fi ay mbokki taalibe yu fasante ko waaye nag buñ ci tuddeelu ci mel ni ahli xasida bu ndakaaru xisbu tarxiya ak yeneen mbokki taalibe yi xam naa ñiy wax bu ñëwee dinañ ci euh, gën a yaatal euh, dina mat sëkk kon sëñ Yërim Aw du ku ñëpp miin ndax li yaakaar naa ne du gan ci moom muy bisub xasida bu doon xool taarix bi bokk nañ ci ñi ko jëkk a yëg-yëg bi ak organisation bi ak lépp loo ci mën a baaxee mbokki taalibe yi ak fii ci kër sëñ Abdoulahi borom dër bi naka la fi demee. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Abdoulahi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sëñ Mballo mi nga àndal waaye di nuyu sëñ Koso Sey mi nga xam ne it mi ngi suma wet di sant yàlla nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant seexul xaddim suñu yaakaar ci dimbali gi ñu dimbali ba sant ñu liggéey te ñu nekk ci yàlla na liggéey bi te ñu am ci ndam yu kawe te moom it lim ciy wut yàlla defal ko ko ci te mu yàgg suñu kanam muy Cheikh Mouhamadoul taxa ah liggéey bi nag ni ko gisee rek ni la bi ñu xëyee 7 ba julli suba ba noppi ci la ñu daal di lal laltu yi am yéene nag jëfe ndigal li waaye ñu ngi ko ànd suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy waa Hizbut Tarqiyyah nga xam ne bi ñu xëyee diiwaan yooyu nga xam ne sëñ bi dafa santaane kër gu ne ñu tànn ay diiwaan jàng ko fa diwaan yooyu indi nañ ko ñu teg ko ci kanamu jataay bi ñu di ko jokkalante di ko jox mbokk taalibe yi ñu di ko jàng waaye ca wet ga it ñu am yéene jàng fa kaamil alxuraan yu bari. loolu nag ñu ngi ciy sant waa Hizbut Tarqiyyah bu baax ci seen taxawaayu rafet ak seen yitte ndax boobu ba tey ñu ngi ñëw di baagante ci kër gi di xool lu manqué ak lu manqué wut waaye xam nga it sëñ Amsatou Mbacké bu sëñ Souhaïbou liggéey bi ñu nekk moo ci suñu kilifa dox suñu diggante ak sëñ Mountakha moom itam ay ndawam ci suba ba léegi ñu ngi fiy ñëw di xool ndax ñu ngi ci liggéey bi liggéey bi nag noonu nga ko waxee rek ni la demee mooy lal nañu laltu yi jublu penku fas yéene jëfe ndigalul sëriñ bi kuréel yu bari nag ci ndakaaru ñu jàng fii ci barab bi ci kër sëñ Abdoulahi borom dër bi waaye am na kuréel yooyu it ñu ngi jàng ci mbaarum sëñ Fallou te jóge ndakaaru waaye xam nga ne diwaanu alu xasida dafay dal waaye waa kër sëñ Abdou borom dër bi it seeni taalibe ñu ngi fi waaye mbokki taalibe yu bari it ci gox yi am na ñooñ fii la ñu dal di nuyu bu baax nag ah sëñ euh, sëñ sëñ sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne mooy mooy doomi sëñ Abdou Borom dër bi te te te te nekk ci biir kër gi muy sëñ Modou Habib ñu ngi koy siyaar baax di ko ñaanal ndax dem bi ñëwee laaj na ndax am na dara lu leen fi manqué ñu ne ko dara manqué wuñu fi mu ne lépp loo xam ne soxla ngeen ko rek na ngeen ko wax ñu defal leen ko booba tey it mook ay doomam ak i taalubeem noonu la ñu ànd ak ñun liggéey bi di sant mbokki taalibe yi nag xam naa dama doon ubbi rek doon leeral loolu bu ko defee jox sëñ Koso nag mu wax la ni mu demee ak culturel beeg yëpp. jërëjëf sëñ Yirim kon sëñ Koso xam na dañ ko waroon a jébbal micro bi rek ndax mooy suñu jëwriñ ci liggéey bi kàddu yi am solo yi loo ciy dolli. macha allah jërëjëf sëñ Ablaye waaye jërëjëf sëñ Yirim noonu moo ko waxee rek la eh, ginnaaw boo xamante ne jotaat nañ ndigal lu am solo loolu nga xam ni eh, mooy ndigalul ñu taxawee ayu bis goo xamante ni dañuy jàng alquran waaye dañuy jàng xasida waaye di sikkar tey jii di altine ji nag sëriñ bi war a ñëw baaxee nu jëmmam ñu tëj ko nga xam ni comme noonu ñu ko doon defee ci gox yëpp nga xam ni culturellement kenn ku nekk sa daara yaa ngi ko doon def di ci góorgóorlu tey jii nag ñu fas yéenee ñëw daje fii nga xamante ne mooy Touba. mooy lu am solo sëñ Ablaye noonu nga ko waxee léegi nga xam ne gis nga sëñ Touba maanaam dafa bokk ci ak matam këram yëpp moo ko moomal boppam. Eh, gis nga ko fenn fu ci nekk rek boo fa duggee day mel ni foofa la bés ba di di xewee tey ñu ngi am tawféex nekk fii ci kër Serigne Abdoulahi Mbacke fekk Serigne Moudou Habib yàlla na suñu borom guddalu fanam loolu te wéral ko waaye ànd ko comité pilotage bi nga xamante ne moom la ñu Serigne bi booleel ci njiitul Serigne Youssou Diop mu boole noog ay ndaw ñoom it sëñ Mbaale ñoom ñu nekk suñu wet ci culturel bi nga xam ne wet gee ñi ngi taxaw alxuraan bi wet gi ñi ngi taxaw li nga xam ne mooy durus bi ci euh, ay euh, diwaan yu wuute muy mu xayada am na fi euh, ak quraan yooyu yëpp ñu ngi fi ñu fas yéene ko àndandoo waaye mboolem goxi ndakaaru yet fu fi ab daayira jógee bu nu nekkee fii ba fees ko dañuy dem ci buntu kër ba bu nu ko feeseet ba ca mbaarum sëñ Fallu ma foofu yëpp ay daayira yoo xam ne ñoo jóge ndakaaru ñoom ñoo fay féete waaye ni mu ko waxee ni ma ko waxee léegi euh, sëriñ Balla ñoom ñu ñoom di toppatoo li nga xam ne mooy kuréel yi nga xam ne benn kuréel bu ci ñëw rek soo bindoo dañ fas yéene ba nga euh, sam njàng àgg yow it nga wane sa li nga xamante ne mooy sa barkeelu ci bis bi ndax niñ ko waxee rek bu ñu waxee ahlu xasida ka mën a togg rek la mën a joxe waaye ki nga xam ne moo mën a yor lool loolu loolu lay joxe ki mën a monter noonu waaye ki mën a jàng xasida ci kuréel noonu waaye ki ko mën a durusit noonu nga xam loolu lépp nag bu dajee mooy doon mooy tudd liggéeyu Serigne Touba Serigne Ablaye ñu ngi leen di sant baax a baax di leen gërëm. jërëjëf sëñ Yirim Aw waaye Serigne Koso ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax. kon mbokk yi ñu ngi nekkoon euh, fi nga xam ne moo di kër Serigne Abdoulahi borom dër bi ànd ak yéen ci euh, reportage yu bisu xasida bi waaye nag sëñ soo xam nga ne euh, bis bi ñu ngi koy yaatal ci ay këru taskati xabaar yu ràññee ko te yaatu yi ci gën a fës nag yooyu murit yi kon yaakaar naa ne jamono yi mbokki taalibé yi ne ci réew mi ak bitim réew ñëpp ngi àndandoo ak ñun liggéey bu am solo bi di ñaan daje ci ngërëmal Serigne Touba waaye di ci fasal mu yàgg fi loolu te wër leen jaajëfal fii ci kër Serigne Abdoulahi borom dër bi ibnu Xaadim Rasul بينوا هو المصطفى المختار وسعته بسر والجار لبدر بخادم الرحمن barke borom Tuubaa kon mbokk yi ba tey ñu ngi wëy ak yéen ci bisub xasida bisub alquran bisub xasida bisub zikrullah bi nga xam ne nii Cheikh Mouhamadul Mountakha da koo digle fii ci Touba nag euh, rawatina li jë wër jumaa ji ñu ngi koy dundal ñoo ngi nag kër Serigne Mbacke Madina ci teewaayu mbokki taalibe yu bàyyeekoo ci ay bërëb yu fasantikoo sëñ Bamba Fall nekk kenn ci mbooloo mi nga xam ne ñoo di jokkoo Safinatu Amaan sëñ bi mbooloo mi ñan la fun bàyyeekoo ak liggéey bi nu mu organisé woo ci ndigal li fii ci kër sëñ Mbacke Madina waaw jërëjëf ñu ngi sant bu baax a baax di nuyu ñëpp di leen balu di leen balu di wax ni rek fii ci bërëb bi ñi fi teew mooy waa Jokkoo Safinatoul Amaan bu caaro yi Géej di fa def bisub xasaayit waaye tamit eh, am na ànd kook Jokkoo Safinatoul Amaan bu Touba Pire eh, nga xam ni daaw ñoo ko àndoon ci ndigalu sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te wér ren tamit ñu dajawaat fii eh, ñun waa Jokko sunu amaan bu Touba Caaroy Géej di fa def bisu xasida ba ak waa Jokko sunu amaan bu bu piir Pire. Eh, waa Touba Sam te daaw ñu àndoon ak sëñ Ahmadou Diop yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak njëggal eh, ñoom it ñëw nañ ñu ngi ci biir waa ahlu wakaana xaqan international ñoom it ñu ngi ci biir. kon ñu ñooñu daal ci ab tënk ñoo fi daje di fi xaar lenn ci waa kuréelu Touba Tëngéej ñoom it daaw fii lañ daloon. ñoom it ñu ngi ci yoon wi am na ñu fa war a jóge ñëw kon ñun ñëpp rek ñoo ànd fas yéene doon benn say euh, jëfe ndigal li nga xam ne sëriñ bi digle na ko ñii ñi ngi ci alxuraan ji ñii ñi ci kuréel yi kuréel gu jug rek beneen toog waaye tamit euh, ñi ne ci wàllu durus xasida yi ñi ngi ci suñ mbokki Baay Faal it ñoom it ñi ngi ci liggéey bi buñ noppee ñoom it ñu mujjee ko ak zikurulaa turu yàlla ni ko sëñ bi diglee ren kon noonu daal lañu ñooy mbooloo mi nga xam ni ci tënk ñoo fi daje am na ñuy doog a ñëw léegi nag muy soxna yi sol yu bële ak góor yi waaye ñooña gëstooguñu ba xam fi ñu jóge waa kër euh, soppe sëñ Ahmadou sëñ sëñ Amsatu Mbàkke Asadul Xadim ñoom it am na ñu ñu yabal kuréel goo xam ni ñoom it ñu ngi fi euh, ànd ak ñun ci liggéey bi. kon ci tënk daal loolu lañ jàppagum ci mbooloo moo xam ni fi kër sëñ Mbàkke Madina euh, fas yéene wéyal ndigalu sëriñ bi. kon mën nañu ne suba ak léegi liggéey bi nun ko sosewul amul benn gàllankoor lépp mu ngi jàll ni ko sëñ bi santaane. waaw wax dëgg yàlla ba ñu noddee fajar ba julli ba noppi rek ci lañ daal di soññi ñu daje daal di tàmbali liggéey booba ak léegi wax dëgg yàlla dara taxawul ñi ne ci alxuraan ji ñu ngi ci ñi ne ci xasida yi ñu ngi ci ñi yor seeni i kurus tudd yàlla ñu ngi ci ñi féetewoo wàllu xéewal yi tamit euh, ñoom it ñu ngi ci di ko waajal ngir daal fas nañ yéene kenn du tumuranke lu waay soxla rek ci yëf yi ñangeen yeeg jaañeen incha allah maanaam danañ ci jot bu soobee yàlla. waaw jërëjëf sëriñ Bamba kon ñu ngi lay euh, sant di la gërëm woyofal rek nga daal di dellu ci liggéey bi ñu wéyal reportage yi fii ci kër euh, Serigne Mbacké Madina. kitaabu Euh, mbokk yi ba tey ñoo ngi desandi ci kër Serigne Mbacke Madina waaye nag ñoo ngi ci benn ci waañ yi nga xam ne nii taxawal nañ ko jëm ci xéewal yi bis bi nga xam ne ni nii mun Mountakha joxe na ko ndigal muy alxuraan xasaayit ak zikrula sëñ Mbaye Diouf Fallilou euh, bëgg nañoo xam mbooloo mi ñan la ak liggéey bi nasoo rawatina ci bisub tey bi noo ko mën a tënk rek incha allah. waaw jërëjëf ku baax euh, liggéey bi fi mooy daayira Kansul Muxtarina fédération daayira Maam Diarra ba soxna Asubiri Mbacke moom sëñ moom sëñ Basirou ci njiital soxna Bali Seck ak sëñ Mbacke Ndiaye ñi nga gis ñi ñooy def fédération daayira Maam Jaara bi ñi nga gis ñu sol kool yoosu ñooy organisateurs yi Baay Faal Maam Jaara yi nga xam ne ñoom ñooy organiser liggéey bi liggéey bi nag ci njiital soxna sëñ Yuusu Jóob mi njiital Hizbut Tarqiyyah ak baaxam ak leewatam ak suñu bëgg suñu diggante ak moom kóolare gu ñu yàlla boole ba tax ñu seddul ñu waañ wi mooy liggéey bi nga gis ni mooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nii xanaa di ci sant yàlla ci liggéey tànn gi nga xam ne tànn nañu ko ba xemme mi nu jox liggéey bi ñu du ko liggéey ngir jëme Sëriñ Tuubaa loolu ñoo ngi ci sant suñu sujjoom yi isu taraxee bu baax a baax baax di ko ñaan suñu yàlla yàggal ko fi tawéral ko di ñaan yàlla yàggalee a a gën a taxaw liggéey bi waaye nag nii rek lii lañ waxante woon ak moom lépp ñoo ngi ci seen ginnaaw waaye is bu taraxee rawat na da jawri suñu sujjoom lépp loo xam ne liggéey suñu Tuubaa jóg na mu xem ci tàmmalu ci rek buñ dikkee bu waxee rek kàddoom la ñuy topp liggéey bi nag mi ngi nii liggéey nañ ko ba noppi ci ak dal ak le suñ kéemtulaay kattan di ñaan suñu borom yàlla ñu fekk ko at yu bari. bala ngaa wàcc kàddu yi liggéey mel na ne gis nañu ne cin yi pare na kon man nañu teel ngeen a xëy ba fi mu ne nii lépp macha allah yéwénal ko rek moo ci des. waaw bi nga xamee ne sëñ su joxe na leen ndigal organisateurs yi ci ci ci ci wàññi lañ fanaan bi daan di ci biñ daan tëdd daanaka lu bari pare na dañoo xëy rek di àggale kon liggéey bi lépp la àgg na xéewal yaa ngi nii pare na séddale rek moo ci des ñi xéewloo ko waaye lépp jekk pare na tey ñu ngi des ak yéen ci reportage bi nga xam ne nii dafa ñeel bisub alxuraan bisub xasida waaye bisub zikkur la ñoo ngi fii nag ci buntu kër Serigne Dame Atta Ibn Khadim Rasoul ñu ngi fi fekk waa fédération Majmahun Noreyni bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Serigne Fallou Fall ñu ngi la fekk fii ngeen bokk ci ñiy saytu site bi euh, organisation bi ak lépp loo xam ne nii mën nga koo wax rek ci euh, liggéey bi ni muy doxee fii ci kër sëñ Dame Atta. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi siyaare mbokk taale yu baax baax tey nuyu ak gërëm alxadime mi nga xam ñoo ñëw ngir couvrir bis bi. fii nag mañ ma waxul noonu nii di fédération élèves ak étudiants yi féete Thiès ñoo fi ñoo fi ñoo fi dal naka jekk niñ ko defee woon daaw noonu lañ ko amee noonu lañ ko amalaate ren te yokk jéego yi ñu ngi ko ànd ak mañ ma waxul noonu ñiy taxawal bisu xes de bi Mbour. ak ñenn itam ci kuréel yi ne yu féete ci dëkk ba ci suba lan ko xëyee ni ko ni ndigal yi dikkee njëkk ñuy ñëw sax njëkk moo leen matukaay yi nga xam ne nit dana ko jël ngir mën a jekku ndigal yëpp àndaale nañu ak moom indaale ko kon daal ci ci gàttal noonu lañ ko noonu lañ ko dundalee ci suba te fas ko fas ko yéene wéyal ba keroog ndigal li di àgg bu yàlla kon mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax nin ko ànde woon nag yéen nag ci benn ci reportage yu am solo yi nga xam ne nii suñu équipe yi ñu ngi wër di ko def ci mbooleem bërëb yi nga xam ne nii jamono yi ñu ngi dundal ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu koy ñaanal mu yàgg fa lool te wér mooy bisub alquran bisub xasida bisub zikrullah ñu ngi ànd nag yéen nag ci kër Serigne Dame Atta kër Serigne Mbacke Madina kër Serigne Abdoulahi borom dër bi ak euh, yenn ci waañ yi ak mbokki taalibé yi noonu ñu koy organisé li nag di benn ci reportage yi ni ñu ko waxee léegi rek ci mbokki taalibé yi ni ñu ko waxee ñëpp ñu ngi ci li nga xam ne nii ñu ngi koy daal di def euh, ñeel bis bu am solo bi lépp nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ginnaaw bi mu jaaree ci Cheikh Bass waaye ànd ak ci ak Serigne Amsatou Mbacke mi nga xam ne nii mooy euh, njiitu ahlu xasida ne ñoo di waa bu xisbu tarxiya ak mbooleem mbokki taalibe yi su ko defee loolu moo doonoon liggéey bi lii nag benn reportage la boo xam ne nii suñu équipe yi ànd nañ ko ak yéen jamono yi ngeen koy seetaan ci ay bërëb yu fasantikoo rawatina nag lu jëm ci teskatu xibaar yi nga xam ne nii dañoo yor ay kër jëmale ko ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul fépp foo wër ci jumaa ji ak ci biir kër Serigne Touba yi njàngum alxuraan maa ngi jolli xasida yaa ngi jolli waaye xam ngeen ne Baye Fall yi ñu ngi ci penku jumaa ji ñoom itam foofu lañ jot ndigal yi ak waañ yi lépp rek ngir soobu ci ndigal Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te jàngat bu gàtt bi ñu ci def mooy Serigne bi li mooy ñaari yoon mu koy digal lenn rek mooy bëgg-bëggam mboole mbokki taalibe yi daal di sax ci jaamu yàlla waaye mboole mbokki taalibe yi doon benn xam ne ñoo bokk lépp bokk Serigne Touba bokk alxuraan bokk xasida bokk zikrullah yal nañu ci daje ak ngërëmam te ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér jërë ngeen jëf. yaa rabbana bi xurmatil quraan wa bi rasuli dayaan wa bi barakati xurufil quraan wal ahadisil qudsi wa bi xurmati xurufil qasaidi